avant tout je remercie remercier tous les jeunes qui ont participé à mon élection Je veux wax euh, au-delà du contentement ça montre qu'il y a un grand défi qui nous attend parce que l'élection, bi lu muy les partis politiques élection warul entre l'État et les citoyens les partis politiques qui euh, concourent au suffrage universel dans le dans leur intérieur nous tamit créé créer les conditions pour xam ne instance il faut ñu une élection nous choisir euh, ñuy diriger instance de manière démocratique donc Guédiawaye si si le loolu moo nous tey ñu assemblée pour renouveler l'eau. donc di leen wax ni rek euh, loolu ba il y a un grand travail boo xam ne bien vrai il y a des acquis qui sont déjà là parce que comme nous nous vu gisee ci élection présidentielle 2019 Guédiawaye a jël la troisième donc nous loo xam ne loolu nekkul loo xam ne dañ koy sànni dañ koy avec notre équipe dynamique xool yan perspective yan ci mën a teg pour que Pastef euh, a jël paix à l'élection 2024 Inch'Allah. bon je pense que président de la république ba mu génnee ne dégg naa leen benn contexte moo ko waral mooy lan dafa am benn événement boo xam c'est c'est imprévisible bo xam ne kenn mësu kaa xalaat donc de su profité rek di ñaanal ño xam 14 jeunes yo xam ne génne leen àdduna yàlla leen yàlla yërëm te xaare leen je pense que 2012 ba 2021 su fekkee yow yaangi sogu dégg jeunesse man mun naa ne kon yaakaar naa ne lu la des euh, préwoo pour pour 3 ans yi dess nga def nga def len lo xam ça permet à la jeunesse de s'épanouir voilà, parce que ça, pour moi, l'employabilité des jeunes ne se décrète pas. C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qu'on prévient pour mën gagner génne jeunesse bi su nguuta bi ñuy nekk pour mën a tax jeunesse bi dootul xalaat à l'immigration clandestine wàññi banditisme et autres donc je pense qu'il il faut nous jël au sérieux question boobu noonu ñu traiter mais dégg que noonu moom ñu dégg peut-être waxu politique politicien rek mais ak ak soo xoolee tey gi ne soo ko tegee si science fépp trois ans yi mënuñu jéegi-jéegi rek euh, satisfaire loolu quoi franchement. tout ça ça montre que ni dans la vie il faut juste travailler te ñu bañ a tricher voilà tricher baaxul parce que soo gisee tey gi nii ñëpp pousse-moi ce Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent, ça ne veut pas dire que je suis le plus euh, euh, compétent. Il y a le mot mais au-delà de ça c'est parce qu'il y a un engagement euh, qui a été exercé sur le terrain donc ils ont été reconnaissants pousse organisation

parti politique yi ci seen i bopp ñoo war a ci lii def au moins ci biir en interne organiser ay élections yuy mën tax démocratiquement nit ñi ñu élire leen comme ça ñooñu ñooñu dañuy am légitimité pour mën euh, li boo gisee tey affaire lu fa am pëccaxoo bi loolu kese la structuré wuñu sen parti ku jog naan mom responsable Pastef mom dafa wote rupture lol motax tax tey bo nii boo ñoo ngi wër ci biir Sénégal yëpp di structuré suñu parti te nag géejawaay mo xew waaw en fait ñun euh sank wax nañ ko wax nako ko ñun ñoo jël troisième e fini mais man pour man suñu jaarale won carte ki ba mu lèr ñun jeunesse gu COJER bi ni sax liwuñu ko parce que dernier événement yu yu fi xewoon ñëpp gis nañ ko do do gis benn jeune cocher bu génn di défendre sa Macky dañu dañoo ñom ñep té tous les jeunes ñoo mobilisé won pour combattre cette injustice là Guédiawaye damul ñu des waxoon nañ ñu ñom déjà dañ ko conquérir parce que am nañ fi le petit frère du président euh, Aliou Sall am nañ fi ay ñom la job ay xawma ñan ak ñan mais malgré tout cela Guédiawaye s'est mobilisé sur un seul homme

Euh, ma taxaw nii donc am presque tous les bureaux du de la jeunesse patriotique du Sénégal euh, qui wet. bon d'abord abord dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin euh, de remercier vraiment euh, ndaw ñi nga xamante ñoo ndaw yu pasteur yi nek fi Guédiawaye encore une fois de plus wane nañ sen engagement euh wane nañ euh encore une fois de plus taxaway bi nga xamante ni amal nañ ko Pastef fi ci Guédiawaye tey nag dañu ñëwone pour installer li ñuy wax la GPS du département de Guédiawaye euh, mu nekk loo xamante ni wax tout à l'heure nekkul activité boo xam ne dañ ko def nii rek juste pour def activité non non dafa nekk activité boo xamante ça s'inscrit directement euh, ci feuille de route bi nga xamante ni moom la parti bi jagleel li ñuy wax la jeunesse patriotique du Sénégal au niveau national. donc muy une mission que le parti nous a assignée maanaam faire de sorte que fépp fu ay ndaw nekk ci réew mi partout sur le territoire national du Sénégal nous faisons ba ndaw ñu organiser en structure nous faisons ba ndaw ñu am cadre d'expression bu nous permettre ñu mën jëmmal parti bi mais plus bu leen permettre ñu mën a dundal parti bi ci gox ñu donc ci lancé boobu comme nous l'avons ko dans plusieurs départements nous la ñëwee tey fii ci Guédiawaye fexe former ndaw ñi nga xam euh, militants de PASSEF, former leen créer un cadre boobu nga xamante ni moom la ñuy GPS moom mën leen permettre ñu gën a ñoŋal seen liggéey mën leen permettre ñu gën a taxawu PASTEF à Guédiawaye mais surtout mën nous permettre ñu gën porter le projet de PASTEF yóbbu ko fi ko avec une animation très forte très dynamique mais plus encore avec une animation patriotique. waaw discours bi dañuy wax rek ni poudre aux yeux la comme à l'accoutumée comme nous mu ko tàmmoo di vraiment je pense que comme ni ñu ko en wolof ginaar lu mu forul ci suba ba timis mënu koo for diggante timis ak et je pense que aussi war war mën xaar ba 15 bakkanu ndaw rot muy gën a taxaw li ñu gëmloo loo xamante je pense que euh, ay waxi la encore une fois le plus discours Macky Sall à chaque fois bu génnee nous on prend au met au poubelles vraiment